waaw léegi nag xanaa dina dina yemb tey réseau réseau Thiès bi dina baax bu ko defee nag mu jël ko <laughs> ànd ak moom ci li nga xam ni moom mooy euh, àllarbay jumaay Tiwaawan macha allah tey ñu daal di ñëw nag ànd ak yéen euh, ci loolu muy euh, jaayante boo xam ni dañ koy feddali dëggal ko suñu jaayante ak suñu maam Seydi Hadj Malick ñu ànd ak yéen ci àllarbay jumaay Tiwaawan Maodo Fawad. nga xam ni euh, taxawaayam mu ngi noonu kenn kenn xamul rek fu mu yem góor gi ndaw ñëpp taxaw nañ takku engagement engagement bu yéemee lañ taxawee ñoom ndaw ñi waaw euh, ndaw ñi li li li li li waa ji waa wayoon sëñ Babacar rek moo ci nekk xale yu judd ci ginnaaw mbay gisuñu mbay mbay la ñu gëm euh, koo ci waxalit mooy maamam waaw buur yàlla moo ko jagleel moo ko jagleel loolu loolu nag mu nekk loo xam ni daka doonee ca baayam sëñ Hadji Malick moo dafa waat boo xoolee photom bëgg ko buñ la nettalee jaar-jaaram nga sopp ko boo boo yoree ay mbindam nag daal di jàpp ci moom dootoo ko bàyyi doo ko ci nekk lenn te yëg ni am nga kilifa gu mat kilifa waaye itam am nga sang boo xam ni man na sëkk la mu doon dalay sàng malaanu sutura àdduna daal la koy sàng àllaaxira ndax góorgóorlu na ba wegu góorgóorlu na ba sàmm kéem kattanam moom jàmbaar ji euh, suñu maam Seydil Hadji Malick euh, ñu nuyu ci itam euh, bu baax a baax ñu nekk ci sous région bi suñu mbokk yi fare ci boor boori Maroc Eh, boori eh, Guinée équatoriale boori Gabon booru Congo Brazzaville ak fu waay nekk rek te bàyyi xel jotaay bi ñu ngi koy euh, nuyu bu baax a baax di ko ziar waaye itam di leen euh, ñaanal ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci liggéeyu jumaay Tiwaawan ji euh, remercier leen ci turu mboolem kilifa yu tedd yi nga xam ni ñoom la liggéey bi te tegu seen loxo te léeg nga gis koo xam ni da ci taxaw taxawaay bu am solo lépp rek ngir ndamu Tiwaawan waaye lépp ngir waajal boppam te bàyyi xel ëllëg te yëg ni àdduna bii nga nekk loo fi deful ëllëg boo demee doo ko fekk euh, loolu mooy waral léeg-léeg jigéen joo xam ne da lay jox euh, contribution ba noppi euh, ni la nag en même temps sama borom kër daa génn àdduna maa bëgg daal di koy contribuer lii ngir mu fekk ko ci bàmmeelam loolu nag muy taxawaay bu am solo boo xam ne jigéen ñaa ngi koy def góor ñaa ngi koy def di bàyyi xel seen ay wayjur ndax kenn ku nekk ci ñun am na koo xam ni dafa dafa da dala dala dala dala dimbale euh, teg la ci yoon ba tey nga mën a nekk ci biir diine ji nga mën a nekk ci biir tariqa bi loolu nag tey boo ko amee euh, fexeel ba euh, sa kéem kàttan nga delloo njukkal ñooñu ki daan jàpp sa loxo di yóbbu Tiwaawan léeg-léeg euh, am na koo xam ni moo daan ànd ak yow di yóbbu daayira ba tax tey tey siir danga koy mokkal te doo ko jàng ndax miin nga ko euh, mu nekk nag xasida boo xam ni la mu làmb ci ay yiw kenn xamul lu mu toll euh, ka daan jàpp sa loxo di la yóbbu jotaayu xadara yi ba tax tey baatu allah allah nga mun koo yëg buñ koy tudd loolu nag ah baax na nga delloo ko njukkal nan kay koy delloo njukkal nag ixlaase sala ñaanal ko cala ma ngi ca barsàq waaye nag léeg-léeg nga daal di am loo jël sa wërsëg daal ni joxe euh, contribution bii may joxe tey maa ngi ko yéene sama sama wayjur maa ngi ko yéene sama soppe maa ko yéene sama sama xarit maa ko yéene sama maam wala sama nijaay kum mën a doon nga yéene ko daal ko ci dimbale ngir rek mu mën euh, am ci wàllam euh, ci liggéey bu tedd bi ma ma ziar bu baax nag ñi nga xam ne ñu ngi wéy tamit di ànd ak ci live bi sa Abdou Abdou Fall moom itam dugg na macha allah Alxaaji ngi ànd ak ñun macha allah ñu nuyu leen bu baax a baax ñaanal leen jàmm mujj doteeku ziar leen euh, te wax leen nañu wéy di ci euh, ci ci ci Wave bi euh, wala boog Orange Money bi wala boog Free Money bi yooyu yëpp incha allah am na ay possibilité ngeen mën ci jotal li nga xam ni mooy seen jaayante tey ci àllarbay jumaay Tiwaawan ji àllarba ji nag nañ ci góorgóorlu te joxe ko daf ñuy fàttali ba ñuy nekk daara ja ndeysaan kenn ku ne àllarba nga am loo yóbbaale boo demee jox ko sa sëriñ tey nag ñun àllarbay ji daal li nga xam ni ni mooy weefam daat ci eh, def barkeeloom jëm ci liggéeyu jumay Tiwaawan ji mu nekk jaayante booy booy yeesal waaye itam nekk eh, pas-pas booy dëggal à travers li nga xam ni mooy eh, jaayante bi na ku ne góorgóorlu kenn bañ a kenn bañ a bañ a yéem kenn bañ a xeeb euh, def ko te a tax euh, macha allah li mag ñi wax euh, yéenay joxe waaye nag yàllaay fay te nag suñu borom ku mu dik payoor nga war koo gëm moom subhaanahu wa taala mi nga xam ni ku jëf lu baax mu fay lu gën la nga jëf ndax yow booy jëf yow jàmm bi da ngay jëfee na nga toll da ngay jëfee la nga am da ngay jëfee la nga mën waaye nag moom subhaanahu wa taala ak kàttanam nga xam ne tëlewul dara moom jalla jalaaluhu wa adda kamaalu nga xam ni manqué wul dara ñàkkul dara moom bu lay fay nag lay fay ci kàttanam fay la ci ci yiwam fay la ci mbaaxam bu ko defee nag nga yëg ni euh, fay fay gi yemu ci waaye da ko fay ba noppi nag daal lay fulal payoor gi muy lu am solo macha allah aywa ma jéemaat beneen yoon jugal sama waa ji alxaaji Pape bu man dama xamul téléphone moo dëgër bopp dama xamul réseau Thiès moo istabalul waa Thiès ba baleen ma de <laughs> hmm, waa waa waa waa waa waa waa waa R100 waa Cité Senghor ñoom itam kenn demul ñu nañ ci ci ci liggéey bi euh, doon ci ay jàmbaar macha allah euh, taxaw ci euh, taxaw bu am solo macha allah Pape bu ñu may wax ni il n'a pas pu participer à raison de difficultés techniques attends ñu jëm ko résoudre rek incha allah tey moom foog ma ma nekk technicien fala budd waaye nag Pape daa mel du ci man de xam naa jombul xëy si réseau bi la woon yu mel noonu wax ni daal mais Thiès moom sama sama sama diwaan la damay tooñ ni rek waaw waa Thiès moom samay xarit lañ waaw ndeysaan mu nuyu bu baax a baax ziar leen ziar itam waa taaxi kaw njabootu góor gi xalifa gay ñoom itam ma nuyu leen ci bu baax a baax euh, suñu sëriñ suñu soppe euh, tafsir abdourahmane gay waaye itam ay ay ay ay magam ki nga xam ni mooy Oustaz Abdallah Gaye ñu ko moom itam bu baax a baax ziar ko ziar ci itam bu baax a baax Oustaz Idrissa ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo ñooy ànd ak ñun bàyyi xel jotaay bi waaw alxaaji Moussa Diop moom xam naa ne bu ma jege woon léegi rek mu daal di baax na moom dugal la ndax moom alxaaji Moussa yamu doon technicien waaye eh, cofeel ga mu am ci mag ñi ak liggéey bi eh, moo tax lu mu laal mu barkeel yàlla na yàlla sàmm ko eh, sàmm mboolem jàmbaar yi nga xam ni ñoo ne ci ci xadara bi nekk ci mission bi di ko doxal na gën a jàppandee nga xam ni benn benn chaîne desul euh, benn benn euh, site desul euh, télé télévision YouTube yi kenn ku ne jël nga sa page di def ay live yaa ngi yaa ngi yaa ngi partagé yaa ngi sensibiliser lépp rek ngir booster li nga xam ne mooy communication bi ba taalibe yëg ni lii seen mbiru bopp la ñu góorgóorlu ci kéem seen kattan loolu nag dafa am solo ndaxte kenn ku ne sa sago kilifa dala war a jaral lu nekk macha allah yal na yàlla kattan leen te taxaw leen Pape bu xam naa léegi Pape te nga te nga secret Saadul Fatiha yi ndax moom itam ni muy ni muy dajalee ay ay ay ay ay ay ay di ko yóbbu ci euh, jamaatu nuur ngir liggéeyu jumaa ji noonu lay ubbee groupe yoo xam ni dañuy dajale ay Saadul Fatiha di ko def hadiya ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy euh, taxawaay yu am solo boo xam ni lu rafet la aywa Ibnu Alioune Diop moom itam Seydina Omar ñang euh, ma nuyu ko bu baax a baax ziar ko moom itam borom xasida yi nga xam ni moo koy bind kaatib bi waaw kaatib bu mag bi yàlla yàlla wéral mu bind xasida biir ko kontaan ndax na mu leeree nañ euh, loolu lépp mooy wane mission bi euh, kenn ku ne yaa ngi ci féete euh, wàll wa nga nekkee waaye muy taxawaay bu am solo boo xam ni taxawaay bu rafet la ñu ñaanal leen yàlla mu defal leen jàmm Seydina Omar Ibn Alioune Diop ñang macha allah nga xam ni moom borom taxawaay la nekk jàmbaar ci daara ji macha allah ma ngay topp ci tànku mag ña ndeysaan nu ziyaar bu ba itam alxaaji Samba Diagne moom itam borom mbind mu rafet bi macha allah ci sànnaar ziyaar itam mboolem waa waa gaaya Euh, ci ñu taxawee euh, ci mission bi yal na yàlla defal leen jàmm su ma nee gaay euh, nuyu na Hamza Niang mu tam nuyu ko bu baax a baax ziar ko ziar alxaaji Dame Diouf ca Belgique ñaanal ko jàmm moom itam yóbbaale géew waa daara Mame Maodo yëpp nag kenn desul yóbbaale leen géew ñoom alxaaji Bokar Si ñoom imam Jabel Kouaté ñoom professeur Mame Ousmane Ndiaye ñoom Oustaz Ahmed Fall ak Tidiane ñoom ñëpp rek Oustaz Adama Diop ñëpp rek borom xilaas sama waaji ji Oustaz Gora maa ngi nuyu bu baax moom itam di ko ziar uh, woo ci uh, àllarbay jumaa ji tey moom bàyyiwuma kenn waa uh, gàmmukat yeeg waykat yeeg muhaddam yeeg imaam yeeg ndaw ñi kenn ku ne na nga na na nga jël sa portable daal di xool la nekk ca weer ba nga fëgg ko daal di koy jébbal Sëriñ Haaji Malick mu nekk suñu addiya ci àllarbay tey ji mu jëm nag ci liggéey jumaa ja moo tax ñu dibbee ko àllarbay jumaay Tiwaawan nga xam ni ti taaliba bu nekk rek war nga cee taxaw kéem sa kattan tey góorgóorlu ci euh, Seydina Omar Ibn Alioune euh, Diop ñang moom itam ma nga noonu di envoyé ay këram euh, di feeñal mbégteem macha allah di bàyyi xel live bi xam naa it noonu la jëlee portable am daal di envoyé li nga xam ni mooy barkeeloom euh, ci àllarbay jumaay Tiwaawan ji macha allah nga xam ni dafa tombeek ñoom euh, nooy ñoom ñoom nooy na Sarr Al Amin ak ñoom Pape Bouba Tidiane def ci euh, benn challenge boo xam ne ñu ngi ko tuddee jaayantey juróomi fanu jaayantey jumaay Tiwaawan muy lu am solo macha allah ci biir loolu nag ñu dugal ci tey li nga xam ne mooy àllarbay jumaa ji lépp rek mu nekk correct boo xam ni dafay jëm ci liggéeyu jumaay Tiwaawan ji Abdou Fall ma nuy ko bu baax a baax moom itam ziar ko mi ngi ànd ak ñun allah di bàyyi xel jotaay bi sama waay ji ma xool waa Thiès xanaa léegi nag war naa baax man boo téemaa jor teer bi wàcc jam ñaajo bu ko defee mu gën a gaaw ma dugg biir Thiès nank rek ndax mën a jul pap bu indi ko ci ci live bi sama waaj ji daa mel ni connexion ba léegi daal euh, daa daa nangoogul nag xaw ma nu mu demee noonu euh, ma xool alxaaji alxaaji pap bu ak Tijaani nuyu itam suñu suñu wéyjur Baye Madiara Seck eh, nuyu ko bu baax a baax ziar ko ñaanal ko eh, jàmm ju dooteeku ñaan yàlla mu mu mu yokk wéram doole guddal fanam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, ziar ci mboolem kilifa yu tedd yi maa ngi koy wax sànq ma ma ma ma baamtu ko rek pour ñi nga xam ñoon jël en cours kilifa yi nga xam ni ñoom itam seen taxawaay ci liggéeyu jumaa ji ràññeeku na ñu ñu ziar leen bu baax ñoom itam ñaanal leen jàmm ju dooteeku ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fàttewuñu euh, imam yi euh, imam Aliou Moussa Samb imam ratib bu grande mosquée xam ne moom itam taxaw na ci taxawaay am solo macha allah yu baale géew mboolem ah imma yi eh, kenn desul kenn desul macha allah mu xaddam yi ah njabootu njabootu mu xaddam yi itam nga xam ni fii ba njarewaaxi ñëpp ngi jug macha allah lépp rek ngir liggéey bi eh, fii ba eh, paal njabootu bam alxaaji Rawxaan ngoom ma nuy leen bu baax a baax ñoom itam ziar leen ziara xalifa ba alxaaji Ousmane Ngom suñu maam macha allah ci tournée yu am solo yi muy def di doxal mission mag ñi waaye di bàyyi xel nga xam ni mooy ndonoom euh, wuutu góor gu tedd ga moo alxaaji rawxaan ngom rawxaan aw jeey macha allah nga xam ne maam Maodo moo waxoon rawxaan raw na leen loolu nag leneen la ci digganteem ak Maodo macha allah seen gàmmu ko ca ndar euh, jotaay la waaye si digganteem ak Seydi Hajj Malick seen daara ya xam-xam yeeg jotaay leer ya euh, ak taxawaay yal na yàlla defal leen jàmm mag ñooñu nga tudd ci ko mel ni suñu maam alxaaji baaba ñong ca Podor nga xam ne moom itam boo ko tuddee tuddu mbaax tudd yiw waaye itam tudd taxawaay muy taxawaay yu am solo macha allah ziar ci bu wax Seydina Aliou Ly moom itam euh, ma ngay ñaan yàlla na yàlla mottali lépp Serigne Babacar Sy Mansour fekki lépp ànd ak tal ci barke Cheikhul Qawmi amin ya rabbal alamin ñaan bi am na solo Seydina euh, na yàlla fay la yiw yow itam ñaan googu yàlla dugal la ci ñun ñëpp yàlla ñu ko fekkee euh, damay faral di ñaan bu jumaa ji noppee yàlla na yàlla def ñëpp li nga xam ni ne amaguñu oto suñu borom ma leen ay oto macha allah yi xew ci jamono tarafet loolu nag nga xam ne buñ ñëwee dañuy ci inauguration teg sa mbayaanu doy euh, daal di dem Tiwaawan bu ñu eggee nag incha allah ànd ak xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour al xalifa nga xam ni moom moo ñu yéene yiw moo tax mu ni na taalibe bi participer daal di koy yaatal nag yamu ca mu wutal ñu yoon buñ koy jaarale nga xam ne day ànd ak transparence ànd ak diligence muy waa jamaatu nur as-sunni ñoom itam ñu jaajëfal leen bu baax a baax ak mboolem kilifa yi ca nekk nga xam ni ku lim doo matal yal na yàlla kattanal leen sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam noonu lañ ci euh, ñaanale itam bu baax a baax euh, tey euh, jaajëfal ñi nga xam ne itam ñoo nekk diaspora bi nga xam ni ñoom itam kenn demul ñu des maa ngi koy wax sànq seen seen euro ah, seen seen seen dollar seen seen liiraak yeneen yi ci topp yëpp euh, def nañ ko ca allah ci nekk ci bërëb yi nga xam ne euro moo fay dox euh, fexe nañ ba dajale ay euro yu takkoo takku daal di koy yóot kilifa euh, gi kenn demul ñu des ñi nga xam ni Maodo leen jur ci wàllu deret taxaw nañ taxawaay bu rafet yóbbaale géew taalibe yi nga xam ni njabootu Maodo lañ ci wàllu pas-pas maam Cheikh Hadj Malick la muy dëggal rek mooy la mu ñaanoon sama njaboot ak sama taalibe bu leen kenn xàmmee ci mbaax su mbaax taxawee daal na ñëpp jug mooy buñ lalee malaan mi ko gaa ñi wër bu ñu bu ñu tegee kaamil bi di jàng na ku ne jël jukki waaye nag bu ñu waxee luy defar société bu ci bu ci buñ ci déggee njaboot Seydi Hajj Malick kenn du ni acam ndax maam Maodo nag euh, euh, sociolo sociologue la en quelque sorte nga xam ni booy liir téeréem bu mel ni Sadul Latif xam naa professeur Mansour Dia du ma weddi moom nga xam ni taxaw na ci taxawaay ba am solo daa ci bind lu yéeme maam Seydi Hajj daan dundeek nit ñi euh, ci wàllum art de de la societé nga xam ni Maodo nitéem foo ko nattu weesu na ko Euh, du lor du lor kenn waaye dina góorgóorlu ba du loru du loru du lore te loolu yental Muhammad euh, jàngale woon mu nekk ca jigéen ñi kenn fàttewu leen euh, soxna Fawade Wele borom gaaya xam naa su ma déggee dina ma ni ah bul fàtte jigéen ñi nag ñoom ñooy pendal yi gën tubéy ñoom itam fala budd ma dal leen jukkal nga xam ni ñoom ñu ngi ciy góorgóorlu dañ ciy dégg bis histoire bu yéeme benn ndaw suñuy war a takk daal koy indi li nga xam ne mooy warugar mu jël ci ci warugar bi benn pàcc bu am solo daal di koy jox oustaz Fata Sarr ni ko daal dama bëgg liggéeyu jumaa ji ñu dugalal ma ko ci ngir yàlla barkeel sama sëy bi waaw mu jaar ci loxo Nour al Amin mu daal di ci li nga xam ne mooy euh, mooy mooy mooy ndaw ñi mu nekk exemple nag boo xam ni euh, boo déggee ñu naan la maam Roqay Njaay keroog loolu la defoon ca ndar daal ni Seydi Hadj Malick li nga ma jox daal benn xaaj bi maa la ko delloowaat nga jëndee ko ay téere ndax taalibe kat warul tàqali ko téere beneen xaaj bi maa la ko jox nga wut pàkk bu la lew doom nga mën ko nga mën ci am bërëb booy ba booy bay di dunde di jaamu sa borom subhaanahu wa taala waaye beneen bi nag maa jaayanteeg yow ngir nga ñaanal ma ma am njaboot goo xam ne dana mokkal lu ci téere yi ba mokkal la ci gannaaw téere yi ñaan googu nag tey moom la ji moom la ndaw ñuy sàkku ci jumaa ji moo tax bëri na ko ci eh, jël soxna danga naan sama waru garka dama ciy génne xaalis boo xam ne dama koy dugal ci liggéeyu jumaa ji yàlla barkeel sama sëy noonu la ñuy def bu leen joxee euh, seen xaalis stage ñu ni ah li ma li ma yor de bëriwul naam waaye nag dama koy jël daal ci xaaf dugal ci liggéeyu jumaa ja ngir mu barkeel ba ci eh, eh, étudiants yi seen bourse yi ñu ngi ciy def ci liggéeyu jumaa ji ah kenn kenn desul ouvrier yi ñu ngi góorgóorlu maçon yi ñu jaajëfal leen menuisier yi jaajëfal leen jaajëfal bu baax ñi nga xam ne itam ñooy jaaykat yi ah, ñi jaay gerte caaf ñi jaay ndox ñu lal seen taabal di jaay ñu nekk ci marché yi kenn demul ñu des kenn ku ne ma ngay góorgóorlu waaw ah, wolof njaay wax ni ah, borom borom ŋadd faalewul borom paña waaw ndax kenn ku ne gura nga yooyu gura nga yor te jamono yooyu bu jotee kenn du xool la nga yooyu nu mu toll l'essentiel rek na nga tàqamteku yëg la gaa yi yëg ci cafka euh, te moo tax ñu wolof njaay di faral di wax ni euh, borom ŋàdd faalawul borom paña loolu nag taxawaay bu am solo la boo xam ne taalibe yi ñu ngi koy taxawee ci réew meeg bitim réew yàlla na yàlla kàttanal leen te fay leen yiw uh, ci barke Seydina Muhammad salallahu alayhi wa sallam ma dalal nag bu baax ki yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi wéy di ànd ak ñun uh, ci uh, live bi macha allah ziar leen ñaanal leen jàmm ju doteeku xaar leen itam ci weef bi nañu wéy di di dugal ci weef bi te moom àllarbay jumaay Tiwaawan la waaw kenn ku ne na nga daan demee te daara ja di joxe àllarba sa oustaz ndax darsi tey nag ki nga xam ni moo ñu jàngal lu ne ci àdduna ba rek dañu bëgg a joxe àllarba jëmale ko ca liggéeyam bu ba ca Tiwaawan nga xam ni euh, liggéey suñu borom la subhaanahu wa taala muy jumaa jooju nga xam ni kenn desul waaw suñ Muntaxa Mbàkke Basiru euh, dugal na ca mook njabootu Seexul Xadim kilifa diina ji kenn ku ne am ci taxawaay ndax wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada muy taxawaay bu am solo boo xam ne nag mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi feeñal euh, ni mag ñi daan àndee ci réew mi ci wàllu bëggante ci wàllu soppante ci wàllu taxaw teew temm ngir lu nar a yàqu nga rafetal ko ba noppi nag ni pat bañ a wax ni budu woon teg man euh, noonu la ko noonu la ko nabi ay di defee alxaaji sambuk ay soppeem euh, def nañ seen premier versement te noonu lay wéyee nag versement yi di continuer ba keroog liggéey bi euh, di di di yemb ci jàmm yal yàlla mottali lépp nag incha allah ci barke sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala nabi wa alayhim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 suñu loxoy ca kaw ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina